internetu Dakar Media TV mbégte la ñu am à chaque fois euh, toog fii jàkkaarloo ak yéen ci seen entretien exclusif ñu fas yéene ci dalal nag suñu papa euh, fas yéene ci dalal ndaanaan kenn dootu ko présenté di papa euh, lamin Ndiaye ku ne xam na ne def na jaloore bu ne ci wàllum théâtre tey nag ñu fas yéene ko dalal fii fas yéene waxtaan ak moom ci actualité politique ak li nga xam ne moo nekk di xew jamono ji ci biir réew mi laata ñuy dugg ci waxtaan bi rek dama koy nuy bàyyi ko mu nuyoon teeg suñu mbokk internet yi Euh, papa nuyu naa la noo def. waaleykum salaam wa euh, maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di la jox sa wàccuwaay rawatina kilifa diine yi yëpp dalee ko ci sëñ Mountakha jaar ci këru diine yépp yëpp ñëpp ak sénégalais yi yëpp yëpp ci kenn jox leen seen wàccuwaay ak respect maximum de respect mhm. euh, bi nga xam ni nii saa yu ma yeewoo moom laa leen di njëkk jox. Mhm. yal na yàlla def jàmm ci Sénégal. Mhm. defal leen ko ci kër gi amiin amiin dëkk bi. Mhm. ci àddina bi. ak ci gox bu ne. ñu yendu ci fanaan ci yàlla musal ñu muccal ñu ci musibaat bala seytaan ak déggu ñaaw torox te ndog te police gendarmerie tribunal kaso accident ak feebar comme ni ma koy faralee di wax. Euh, merci merci beaucoup papa mbégte la ñu am euh, di toog fii di waxtaan ak yow comme ni ma ko waxee sànq suñu mbokk internet yi euh, lépp loo xam ne actualité rek dañ koy daal di waxtaanee fii ci réew mi euh, ñu koy dooree ak ku ne xam na ne depuis vendredi dañu teg loxo leaderu Pastef bi di Ousmane Sonko ba niki tey ci suba sax papa ci lañu ñu honorable député Guy Marius Sagna di ñu xamal ne que nanguwuñu moom Ousmane Sonko mu recevoir benn visite ku ne xam na ne déclaré woon na li nga xam ne moom mooy de la fin. waaw euh, mu nekk donc mbir moo xam ni kenn xamul lu muy nuru rawatina ci man sama gis-gis ma yaakaar ni singali la te politique jaru ko dama gisul lenn loo xam ne ñor na fi ba ñu koy màcc parce que Sonko doomu jàmbur la ñu mu ko sëqal ay doomu jàmbur lañu mhm. te li ma seetlu ci moom moo di fépp fu mu musaan taxaw mbaam mu toog fa wala muy def meeting ak lu mu mënti doon eh, yéene gi mu am ci moom moom day booleeg ñëpp mhm. bañ na ba di leen lim ci ay meeting ci ay ndaje yoo xam ne nii daat ne moom li mu bëggee mooy une élection inclusive donc loolu mooy élection boo xam ne nii ñëpp ciy bokk kon nag yaakaar naa ni ñi mu ko seqal xaw ma luy seeni intention ak yëf dafa tegloo tegloo tegloo ba nga xam ni nii loolu moo njëkk jaaxal nit ñi ba pare ñuy laaj lan moo ko waral lan moo tax ci sama gëstu problème moom ak euh, Macky dafa yàgg sama un problème individuel d'abord parce que soxlukat yi dafa amoon problème boo xam ne nii moom daf ko feeñal euh, président Macky Sall bi mu ko yëgee benn suxlukat moo ñëw daal ne gis nga gos bi ni mu def de kii boo jógul ci moom ci teer sa kaw lay si mm-hmm. alors ñu euh, baal ma su ma euh, citéwul tur yi parce que xam naa ko mm-hmm. xam naa ko bu baax Sénégal xam nañ ko bu baax mm-hmm. Euh, fa saa si donc Macky daal di jël benn décret rek dàq ko. c'est impôt et domaine. waaw kay. Mhm. ngir impôt et domaine. Mhm. ba mu ko dàqee nag yemul foofu euh, Sonko di liggéey liggéeyam daal di xëcc boppam di dem di dem di dem ndànk-ndànk dugg ci politique bi du xuus du xuus ba nekk député. Mhm. ñu dem élection mu jël troisième kon yooyu yëpp ba tey tànk yooyu mu koy séento woon ba dàq ko mhm. moo yot di dikk ci moom ci moom ni mu ko jàppee ci li ma yaakaar mhm. parce que loolu dama ko seetaan ci vidéo mhm. gis ko it gis nga man fii yow gis nga télé bi ma yore euh, dafa branché internet euh, lu doon ni vidéo ci actualité yi nga xam ne nii dafay xew fii ci Sénégal dama koy jot. ak yeneen actualité yëpp yëpp yëpp su ma amul woon firnde gi kon lii may wax tey duma ko mën a wax. ba pare nag je connais l'homme je connais parce que ñëw na fii ci sama kër lu ma juróomi yoon. moom Ousmane ma jàng ci moom jikko yoo xam ne yu rafet la wallahi foo koy séentu rek raw na sax jikko nit. Hmm. man dem naa dem a dem a dem ba ni waaw kii moom eh, ni ko yàlla liggéeyee wuute nag yeneen mit mu lal ko nag ci dëgg ak mhm. jub mhm. li gën a jafe ci nit dëgg ak jub mhm. daanaka loolu sax moo ëmb liggéeyam bi mu daan liggéey foofu mu daan liggéey impôt et domaine dem na fa ba nga xam ne nii doon bëgg a def eh, syndicat foofu wóolu woon ko fa jiitaloon ko Euh, donc loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne nii engagement ba mu amoon mosu cee génn. Mhm. ba léegi nii. Mhm. Sonko suñ la waxee nii euh, ñi nekk Pastef ñëpp la plupart du temps ñu jàpp leen dugal leen ci kaso. Mhm. Euh, seen ndekki seen añ ak seen reer yëpp moo ko yore aujourd'hui tey bu ko jàppee. dugal ko kaso. Mhm. tu vois ce que cela fait. mu nekk dégâts boo xam ne ni xamuñu fu mu toll. Mhm. kon nag yooyu yëpp ay gàllankoor la. Mhm. ndax ci dolli. la jiitu ci gàllankoor yi mooy mbir wu Adji Sarr. moo koy topp di ko topp ba léegi nii. jugé guñ ko nag ba mu leer naññ ci biir nopp nit ñi ak seen i gët. waaye lépp luñ ci mënti ay. tribunal ba mu dindee ñaari tuuma yi nga xam ne nii moom la ko aji Sarr lalal. Mhm, mooy viol bi ak menace de mort bi. waaw kay. Mhm. moom sax Adji Sarr dem na ba boo koy déglu ci ay yenn audio yoo xam ne nii génne na. Mhm. donc audio yooyu mi ngi ciy waxtaan ne euh, kii amul dara amu ci. mais dama doon fo. ñooñu ni ko déglu ñëpp. la ñuy wax ci seen xel mooy kii daf ñuy fooyee. wala mu ñuy fonto te xamuñu li tax mu nekk nii indi nit ki tribunal ak euh, li xew ci seen mhm. diggéey te yëpp ci àtte bi mhm. mu ñëw ba léegi naan da doon fo waa kan la yëpp ma yaakaar nañ ñoo ko dugaloon ci loolu ñooñu la yëpp ñoom ñoo ñooñu la yëpp waaw kay ma ko mhm. ah, man nag àtte bi su doon sama sago ñi ko ci dugaloon aussi tamit dañu ñëw teew teew ci àtte bi wala ñu cité leen pour que ñu aussi tamit mën taxaw wax parce que bu fekkee ni complot la boo xam ne nii euh, du ñu dégg mukk euh, walla buñ koy dégg mbir mi day dem ba xóot mm-hmm. mais avocat yi xam nañ xam nañ mbir mi mm-hmm. na mu demee mm-hmm. ak yépp ci biir dañuy référé wu rek ci benn euh, ndaje boo xam ne defoon na ko moom ak journaliste yi mu am waa Walf ci biir am yeneen i journaliste yoo xam ne nii wax dëgg fa yàlla ñu may ñu ma sopp lañu mhm. te gëm ni ñooñu ñoom fu ñu nekk boole na ci 2 boole na ci am na daal euh, kuréel yu bari yoo xam ne kii mais ñi ma ci gën a ràññee. Mhm. mun naa ni waa Walf la. parce que ñoo ci ëppoon ci toogaay ba. Mhm. Euh, boole ci Momar ma nga fa te ku xam Momar ci ay mbiram. Momar du kaf du fo. liggéey bi da ko def ba mët sëkk. donc ba mu toogee ak ñoom ñu ko doon ñu seet ba xam moom moom mooy kan ak ay pexeem ak fam la jubal li mu lal. Mm-hmm. fas yi nu ko def politique da ngay xam ni kii dafa seet wecc ci boppam. Mm-hmm. question buñ ko laaj tontu na ci. Mm-hmm. am na ñu si borosé sax yenn question yoo xam ne nii xëy na yi ko euh, gàllankoor fi mu nekk dugguñ ci woon. mais dafa mel ni loolu tontu woon na ko yàgg na. bien mhm. euh, bu may seetlu. nit la koo xam ne yàlla ko samp. Mhm. alors samp boobu mu ko samp. Mhm. dama yaakaar ni samp bu yàlla. xool ko rek bu fekkee ni garab la nañ ko arrosé de kii Sonko en réalité ba ñu war ko sono est-ce que xam nañ ko j'ai toujours dit que ni xamuñu ko ba léegi parce que man bu mu koy misaal tey dafa mel ni. Euh, bu doon taw dafa commencé di wicc wiccal hmm. mais wisigul bay taw donc ce dont il est capable dépasse l'imagination dépasse na loolu que ça soit sur le plan mystique parce que hmm. évidus jàng na alxuraan nee naa ci vidéo yi rek laay inspiré wu di wax yi. Mhm. parce que dama koy xool def sama recoupement. Mhm. alors ensuite def ay analyse yoo xam ne analyse personnelle yu ma xam ci moom nga xam ni ñëw na fii ci kër gi cinq fois. te mhm. dafa waxtaan ma dégg. bi mu fi mujjee ñëw parce que dama daf ma seet si euh, dégg ni dama feebar. ak yenn témoignage yi nga xam ni moom laa ko defal. bien ba ko waxtaan mu wax jox ma mu wax ko delloo. alors euh, mu indiwaat yeneen affaire ci kii. Mhm. dem nañ ba suma diggante ak moom goro la ñu woowante. Mhm. parce que sama doom boobu mu maye woon. Mhm. moom la donc yooyu yëpp doo xam ne suñu diggante moo tax suñu déggee may wax ci moom wax ci moom wax ci moom. dafa am lu jiitu bi mu dugg avant mu dugg politique. yi ma lay wax nii yëpp dox na suñu diggante. yenn yi li ma seetaan lu fii. ba pare def analyse bi. yooyu mais may jéggulu nag. ci waa Pastef parce mhm. que am nañ seen benn ci parti bu organisé la mhm. am nañ seen kuréel boo xam ne nii mhm. ñoom ñoo yeyoo euh, nu ñu koy waxee ci ñoom ñoo yeyoo wàllu communication waa kay ma ngoog ma ràññee ci euh, un jeune avocat boo xam ne mi ngi woon ci greffe bi nekk wax dëgg fa yàlla ku yàlla toggal boppam la mu am solo maître Ngagne Demba Touré jërëjëf. Mhm. xale boobu nañ ko ñaanal. Mhm. dañ ko ñaanal. Mhm. vraiment te encouragé ko ci muy def. moom it ku làqu la. en tant que personnage. dëgguma la papa waaye xam naa dinañ si ñëw ci kanam ndax ni ki démb sax moom mi ngi doon def benn déclaration. Euh, ci situation waaw ci situation réew mi. mais yaa ngi koy wax léegi ci sa biir wax euh, ku xam doole bi nga xam ne Pastef amoon nañ ko. Euh, ci maanaam euh, na nga xam ne ñu ci bari ci ndaw yi amoon nañu confiance ci projet bi nga xam ne moom Ousmane Sonko tegoon na ko ci table bi mais ñu dem ba maanaam euh, yamatuñu ci teg ko loxo moom Ousmane Sonko mais dañu daal di dissoudre li nga xam ne moom mooy Pastef tas parti bi ak gis nga arrestation yi na mu baree Euh, ndax ku ci mel ni maanaam Jamil Sané euh, di meeru parcelle teg nañ ko loxo ak euh, ki nga xam ne moom mooy meeru Patte d'Oie moom aussi ñu daal di koy teg loxo muy mun a Dièye mu nekk loo xam ne jamono ji non seulement teg nañ ko loxo moom leaderu Pastef bi waaye ñu ci bari ñu ngi leen di teg loxo jamono ji lan nga xalaat ne moo waral mbir moomu papa mais da dul yoon mhm. parce que boo gëstoo ba seet ba xam ñoom lan moo tax mhm. ñu leen di teg loxo noonu mu tegloo man am na bés boo xam ne nii dama toog di suivre euh, télé. Mm-hmm. ñu leen di lim par kenn kenn lim par kenn kenn mooy buñ ko mujjee jàpp. Mm-hmm. bari man yo ma daal ni waaw ñii fan lañu jëm ak ñoom. ak lan moo ko waral. doy sax su fekkee noonu am na benn mbir boo xam ne nii moo tax ñu jàpp leen mais li ma seetlu appel à